jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara ni ko sëñ Mbàkke di waxe ci bu ñu nekkee ci albidaaya mooy fajaru àjjuma day am tem tem bi mooy ilallahi ibadallah ilallahi ibadallah ñu ngi ci njëkkoon a ànd ak al imaam ibnu qayyim al jawziya rahimahullah ci téeréem boobu tudd madaariju saalikiin ila laay ibadallah yoon wi dafa gudd léegi ñoo ngi ci ànd ak ak docteur Youssouf al Qaradawi fi tariqi ilallah kon ilallahi ibadallah mbokk yi ngi woon kon ci étape bu tudd tuub ki jëm ca yàlla mi ngi toll ci benn station bu tudd tuub walla benn aéroport bu tudd tuub ndax dafa am al yaxasa muy yeewu al fikra muy xalaat al basira muy xam wala gis al azmu muy dogu al muhaasaba muy seet li nga am num tollu calculer at taw ba mooy tuub tuub mooy dindi ci bagage yi ci bokkut wacc bàyyi ci yi ci bokk léebaloon naa leen ko ndeysaan sunu mbokk Abdourahman Fay ku ñu wax Aldo mu ne léeboo moom <laughs> tubaarkal ndax dama ko léebaloon ndax comme ñoom ay douanier lañ maa leen train bi day dem jóge Sénégal jëm xaay soreegut nag am ku yéeg ci train bi ku ñuy wax Muhammad benn douanier la xam na marchandise ma douanier douane bu mag ba di bañ ca xaay mu dugg nag di nu wax nañ ko sànni sànni marchandise mu baaxut mi yor mu baax mi loolooy tuub mbokk yi damay ñëw tey ci tomb bu am solo ñu ko doon tàmbalee bëgg a dugg muy tuubu yonent yi tawbatul anbiya indi woon naa ci aadama ndax moo ci njëkk a juum sunu boroom tabaaraka wa yedd ko mu tuub indi nañ ci Muusa alayhi salaam kero ba mu mbëkkee waaja mu dee waaw tabarkal Moussa it defaat na leneen nga xam ne euh, loolu ñu naan xasanaatul abraari sayyiatul muqarrabin def naa noonu la Moussa dafa ne suñ borom rabbi arini anduru ilayk ndekete loolu jar naa tuub yàlla feeñu ma ma gis la ndeke loolu jar naa tuub mook penc mi xale yi naan gis naa yàlla kaay ma wan la ko laa ilaha illallah yonente ngi nii ci ulul azmi la bokk min rusul ne yàlla arina anzuru ilayk qaala lan doom a gis yàlla xañ ko ko ne ko doom a gis waaw foofu day xalaat yu bare fi am waaw tabarkalla ba tax sunu borom nag yedd ko ndeysaan ne ko yaa Muusa ndeysaan yaa Muusa boo tooñee buñ la koy wax doo siggi xool moo tax del gi lu métti la ci nit waaw war na di am nag ci couple yi diggante jëkkër ak jabar waaw waxtaan yu am solo yi ndax Moussa def ne rabbi arini ni ilayka tooñ gi mooy loolu yàlla dama laa bëgg a gis loolooy tooñ gi suñu borom ne ko lan taraa nii doom a gis tegal ko ci yem ko ci tegal yépp ne ko nag yaa Moussa ndeysaan loolu fi ne bu ko jëkkër waxee jabaram rekk mu sëgg waaye bu ko jabar waxee jëkkër léeg-léeg du sëgg ah kay da war a sëgg ndax yaa tooñ di sànn mooy la najaay seet yow nga ne ko jonga ma di sànn wala sa doom def ko nga nga nga jox ko langage boobu waaw langage boobu waaw <laughs> baax na ah hmm? eh, bi de yaa Moussa di sànn mbokk affaire bu bu maanaam xitaab bu yéemi la sax fi di yéen sax yéen yaram ngi daw ku toll ni yàlla jàkkaarloog Moussa ne ko yaa musa Moussa sëgg ne ko làbbayka xam ne tooñ na ronga ñi tàmbalee ñëw sunu borom tàmbali koy yedd yedd diplomatie ne ko in istafaytuka ala nnaas ndeysaan nit ñëpp yaa ma ci gënal nit niti jamono yi nit ñëpp yaa ma ci gënal ndeysaan allahu akbar Moussa mu naa ah, mu ne ko dama la bëgga limal say cër li ma la defalagum laa la bëgga limal in istafaytuka ala nnaas nit ñi jamono jii mun naa mën a ko yaamu ci gëral bi risaalaat yi bi may yónnee am na ñu fi nekk paa Mor ci dëkk bi paa Galaaya fi paa Njagaa ngi fi paa paa ñu bare ngi fi ma bàyyi leen fi tànn la te melee tànnam liir nga bébé nga huh nistafaytuka ala nnaasi muy benn bi risalaati muy ñaar wa bi kalaami muy ñett penc mi li muy xumb xumb yow rek laa wax Moussa nga ne ma ah may la loo yor nga ne ma yet yow rek Moussa yow téléphoné wu ma la bindu ma la lettre bindu ma la whatsapp mukk dama na la Moussa nga ne ma ah loo yor nga ne ma yet Moussa sëgg sunu borom ne ko faxus maa aateetu ko. doy loolu li ma la jox waaw doy loolu doy nag jafe na waaye doy loolu li ma la jox xam nga nun sax yàlla yeddaale na nun ñëpp ku ci nekk li la yàlla jox allahu akbar dégg naa si mbakki si la fan yële mu ñëw ci ndénkaane yonent bi ndénkaan yu bari yooyu waaye kër ba yonent bi dénk waa ji def ne ko warda bi maa qasama allahu lak waaw ndeysaan li la yàlla séddee doyloo ko te bég ci na nga am fierté yi la yàlla sédde dégg nga waaw ci digg na suñ mbakki si li ci waxtaanu almisbaax mu indi ci tubaarkàlla yu am solo yooyu yàlla na ko yàlla sàmm waaw hmm? ma ateetu ko jëlal li ma la jox fi ne nogo yi <laughs> nogo yi ci jeeg ji gën a ñuul mbar ci la bokk nogoy bi muy nekk càll ci jànq ja fa gën a ñuul la bokk waaye ñuulaayam boobu nogoy bég na ci mbég moo xam ne musumaa gis mukk mu jënd li jigéen ñi diwoo ndax jóge ci mii dem ci ne waaw merci nogoy <laughs> waaw loolu ci qualité yu qualité <laughs> ci xam naa qualité yi bëriwul waaye boobu moom ci la bokk nogoy jànqu na ba niñ ko takk ñu takk ko ba nee mu mel nee nga xam ne sàddu na tey sët yaay ami doom yaay ami sët doom yaay ami doom ko mu muy ay sët teewu nogay ba na meloon la mel wax la ko tey benn ñaaral ba musuma gis ca boppam ba am mees kawaram geel la doyloo léeg-léeg mu maab ko maab yu ñaaw léeg-léeg mu def ko petit petit ski léeg-léeg mu def ko ndiggal salaat <laughs> ngeen baal ba si tit tit waaye yàlla daf ne Moussa faxus ma ateetu ko mais nit ñi kenn ku ne li yàlla jox yaa ngi defe ne doyut dangaa war a wuti loo ci dolli di xëy di tit tit lu rekk nu sonal nag mu ne ko nag dégg nga ne ko moom kay dégg naa ko dootul amati mukk mu ne ko wa kun mina shakirin sant ma si tit tit mu ne ko sant ma sant ma ndeysaan Moussa daal di sukk daal di sukk ne ko rabbi inni zalamtu nafsi faxfir li ndeysaan faxafara lahu ndeysaan eh, ci yàlla mu sukkaat ne ko rabbi xfir li wali axi wa adxilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin mu ne ko defal naa la ko mu ne yàlla baal ma maag sama frère bii te bindi ñu ci listub ñi nga xam ne ñoom nga yërëm ëllëg mbokk yi tuubag Muusaa gàngoog waaye beneen yonent li ay jaar-jaar lay fàttali rek mu yunus dégg ngeen ba mu duggee ci biiru jën waag laay laay laan anta subhaanaka am ja waaw waaw inni kuntu mina zaalimiina yonent yàlla daawuda jaar na fa ndax daawuda procureur la woon waaw procureur la woon bu nit ñi jotee moo leen di àtte mën a àtte nag lool waaw ndax euh, àtteem yam àtte woon déggoon ngeen ko ca digganteem ak euh, pénc ma tabarkalla Dawuda àtte ba audience bi jeex mu dem këram taal ataaya am ñu ne cëpp ca ga daawud ne ah ñu ne koy waaw sunu sunu sunu sunu projet bi munta xaar audience bii déew atte nu léegi bala noo xeex léegi laa taxaf bul bultiit bul waaw nun du ñu agresseur déedéet du nuy bandi mukk danoo am problème boo xam ne mun taxaar audience bii di ñëw lu xew mu ne ko inna haadha axi lahu tisun wa tisuna naaja wali naaja waaxida mu ne kii ma ci mboobu mu poñe ko nii quatre la am juróom-ñeent fukki xar ak juróom-ñeenti xar menn xar moo ko manqué téeméer man mennoom xar laa yor di ko kopp koppal mu bëgg nangu sama xam mi boolee ki xaram maanaam fi ne penc mi tam mbokk yi ñi bari le noonu la def ñi néew le ak bari ñi bari le ñi ngi xëccoog ñi néew le liñ am kenn doylootul daanaka li nga am yaa ngay seet la am nga jël loolu muy coppi coppale kas néew def ko ci sa bos gis ko am camion camion camion bagaas nit romb ko ci ab welo mu bëgg jël welo ba boole camion bi waa ji dafa daaneel rek daw di ne ko laqad zalamaka dafa daaneel rek mu ne ko laqad zalamaka yàlla na ko ah, daaw daaw ñu àttee nii de déedéet daaw de droit de réponse daa war a am danga ko war a déglu mu wax xam nga sunu télévision yeeg sunu rajo yi léeg-léeg loolu def leen di dal te duñ ko yëg te ci yàqalaale njiitum réew te duñ ko yëg gis nga ñu tudd ay oppo ay oppo ay opposant ñu leen ñu koy tuddee <laughs> yàlla yàlla sàmm leen yi ñuy wax daa war di génn ci sunu télé yi walla boog sunu télé national ñaxtu yeeg dox yeeg yépp daa war a génn lu tax parce que loolu sañ-sañu zul ya day ni la ca julli gu yonent ba yonent ba daa kàbbar julli takkusaan julli ñaar rakk rek sëlmal toog julli ñaar rakk rek sëlmal toog opposition bi am ku jóg ci opposition bi am ku jóg maanaam bokk benn saaba buy dooru dugg sa ci yëf yi xamagul li xew ne ko waaw dañoo wàll dañoo wàññi julli géem da ngaa juum ñëpp téye seen gémmiñ lii nees koy a yonent bi yonent bi daal koy gestu ne ko mu wàññiwoon julli gi ko ñaar yooyu am na ci bu am ñaar yooyu am na bu ci am yonent bi daal di gestu saxaaba yi laaj leen ñu ne ko waaw loolu mooy ci penc mi ñuy opposé sañ nañoo wax ne julli gi moom dañ koo wàññeem da ngaa juum sañ nañ koo wax waaye loolu bu dul àgg ci président critique boobu dafa àgg ci yonent bi kon day àgg ci président moo xam ku mën na jiit nag waaw loola loola Omar ibn Khattab waxoon laa xayra fiikum isaa lam taquluha wala xayra fiina isaa lam nasmaaha ilallahi ibadallah maa ngi ciy tuub maa ngi ci tuubagu yonent yi alayhimu salaatu na ko tooñ na la sunu borom ne ko déet déet yow day saa tey moom atte bi jàng na wa danna daawuda anna fatannaahu fastaxfara rabbuhu mu ne sunu borom jéggal ma wa xarra raaki waaw mu daal rot ruko dellu ci borom subhaanahu wa sunu borom de ko jéggal naa la yàlla nu jéggal eh, tabarkalla bu su sujjootee di jàngal xuraan te lam ko ca tegal nag wa anna la zulfa wa us wa xusna maab mooy sutuub gi tax na set ga wecc ñëwal fii toog mbokk yi noonu la mu tax sunu borom ci jeneen laaya mu ne ko yaa daawud inna ja'alnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaasi bil haqq wala tattabil hawa mu ne ko daawuda atte bu yàqu rek hawa moo ko yàq hawa mooy li nga yëg ci neex-neex boo ko dugalee ci atte bi mu yàqu nel benn hawa li nga yëg ci naqari naqari boo ko dugalee ci atte bi mu yàqu nel ñaar hawa li nga yëg ci looy satisfaire nit boo ko dugalee ci atte bi mu yàqu dangay def tajarut ci yooyu yëpp door a mën a atte daawuda mu ne ko dégg naa fi ngay waxe waaw ndax mere nit ñu la koy jëliloo nga dem dóoru ko ñaari mbéj dóoru ko dugal ci oto bi loolu bokkul ci àtte bi loolu bokkul ci àtte bi waaye di àtte nit yi di ko wan na tey tey laa la koy wan loolu bokkul ci àtte bi <laughs> yaa Daawud yaa Daawud moo tax yàlla di woo gaayam yi dégg ngeen yaa Muusaa tey yaa Daawud sa àtte bii bul ko àtteeti ndeysaan bu ñaar dikkatee di xuloo na nga déglu kii ba wax ba noppi nga déglu kee moo tax audience yi ngeen gis muy gudd audience ñetti fan juróomi fan léeg-léeg ñu dem ba minuit léeg-léeg mu weesu ko ndax dangay ngay déglu kii ba mu jeexal takk nga door a déglu kii ba mu jeexal takk ndeysaan waaye Daawuda moom daa déglu kenn ki rek mu ne ko yaa Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi dama laa def xalifa ci suuf si kon soo attee atte parparloo am na ñoo xañ sa weenu teraanga wi bul parparloo mukk ci àtte faxkum bayna naas bil allahu akbar del atti dëgg ki am dëgg bul ko xeeb moom bul ko xeebal dëggam gi ki tooñ bul ko bul ko nawal tooñam gi bul ko xeebal tooñam gi bul ci dugal nag séefi bàpp yow bul ci dugal yëfi jàmbur dégg mu ne ko waaw wala tabil la faydalaka an sabilillah isaan daawuda daal di tuub alquran mu ne waskur abdana daawuda zal aydi innahu awwaab waaye ca jeex la mooy nag wa inna lahu indana la zulfa wa xusna maab tuub day raxas nit ba mu set wecc yàlla tabaaraka wa taala effacé la li wees woon yàlla nañu ko effacé mbokk yi ay yónnante nga noonu yoo xam ne yàlla dafa nettali seeni jaar-jaar seen diggante ak moom dégg ngeen seeni njuumte ah tabaarkalla la tàmbalee ca aadama jaar ci Muusa jaar ci Yunus ñëw ci Daawuda waaw sunu borom subhanahu wa taala jàngal nu ko nu jóge ci tuub ci alquranul karim ñëw ci tuub ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi sunna an nabawiya waaw alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moo ñu daan firil euh, alquranul karim sunu bind ya maag ndeysaan suñu sunu waajur wa Ibrahima jàlloo commissaire moom daal li ko gënoon yéem xam nga moom comme commissaire la woon atte boo ñëwee ci atte daf koy yéem moo tax suñ masaani ñëw ci yii rek tabarkàlla <laughs> Ibrahima jàlloo commissaire ca Padoa rahmatullahi alayhi sunna si yonent bi boo ca demee danga nga cay fekk mu fees dell bari lool lu yonent bi di woote jëme ci tuub ndax xam nanu ndax noo di aw xeetam ñu yónni ko ci nun waaw addisam yi bari lool woote jëm ci tuub ku rëy nag munta tuub mukk ku rëy ku naw sa bopp ku defe ne doo juum ñu mel noonu mënuñoo tuub tuub ku oyof moo ko man ndeysaan baatu baal ma séetéetéet baatu baal ma yombut waaye yonent bi xemmeem loo nañu tuub leeral nañu baaxaa yu tuub waaye defe ko ci façon yoo xam ne yu bare bare la déglul bii yaa ayyuhan naas yaa ayyuhan yéen nit ñi nite yéen nit ñi nite ànd ak seeni xel te bëgg ànd ak man ëllëg tuubu ilallahi tranchime leen tuubu tranchime leen ilallahi jëm ca yàlla fa inni man atuubu ilayhi fil yawmi fil yawmi mi amarra mu ne téeméer yoon lay tuub par bis ah mu ne maa la ko wax de mu yéen mbokk yi yonent bi di tuub ti euh, tuub moo tax xale ba dafa ñëw fekk genn góor muy def astaghfirullah junni mu ne ko li ngay def biddaa la dafa ëpp ndax yonent bi cent la daan def <laughs> loolu la loolu la xale ba wax góor ga ne ko yow li ngay def biddaa la ndax mille yonent bi daa ko def cent la daan def daal di koy jàngal addis bii góor ga ne ko xëy na kon maa déggut li ma jàng mu ne mu ne ko dañ koo wax moom luñ ma waxut xale ba ne góor gi luñ ko wax mu ne ko li yaxfira laka laaw maa taqaddama min zambika maa ta'axxar yàlla def ne ko bi ma lay lati yónni bàkkaar boo fi def baal naa la ko bi ma la yónnee bàkkaar boo fi def après baal naa la ko mu ne waaw mu ne ko muy def cent man mi ñu ko waxoon ñaata laa war a def xale ba na cell góor ga na cell ne ko bàyyi maag suma miil yi <laughs> mbokk yi dégg li nga jàng am na solo lool moom Cheikh El Hadj Malick nee koo gis mu bëri diingat lam xam daa bëriwul man qalla ilmuhu kathura inkaaru koo mu lam jàng daa bëriwul teg leen seen baaraam foofu ñu ñaan sunu borom mu may nu nu déglu ko benn yoon ñaar yoon bu ñettee ñu indi bind bu bees incha ilallahi ibadallah maa ngi ci buntub tuub maa ngi toll ci tuubug yonent yi alim tuub ci alquranul karim ba indi tuubug yonent yi jeexal ko ñëw ci tuubug wala tuub boog ci sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam jërë ngeen jëf ak seen fi war a jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaleen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor bii yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara naan doon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.